ngi may jox sama blouson de. Zador. sama blouson sëñ mhm. ngi nii blouson lamb jaa ngi nii Zador. Zador sol Zador wàcc ci suuf. dar sama doom nday. ñu am ndam incha allahu rabbi Zador. suba Zador laay laal incha rabbi ànd sama xarit sama doom nday sama lépp Balla Gaye yëngal incha allah yàlla may ñu ndam. Zador. carte la de carte ak bat ah Tafa Kase may naa la benn Njambaan may naa la benn ay loos la loos loos ah loos. Hmm? loos loos. yu 5000 yaa ngi nii yu loos yaa ngi nii. Tafa benn Njambaan benn. Baye Mor benn Papis benn sama famille gis ngeen yii maa ko may sama waa kër benn quinze mille francs la un deux trois quatre cinq nga jaay ma ci yii huit yii huit laa ci bëgg yu cinq mille yi waaw Khalil moon na mi waaw c'est le Guédiawaye ki gañ ànd ak mbër mi teewul ngay def ci moom waaw ndamam moo ma gën a lu am ci àdduna jaajëf. mais Ahmed ñun géejawaay rek moo ñu ñor ñun ku jàppale géejawaay jàppale nga ñu boo ñëwee jënd ay centaine de billets pour Balla Gaye fan si Balla Gaye yi loolu amuñu lu dul di la remercier ñun amuñu ku dul suñu champion ku ko bëgg ñu bëgg la ku bëgg géejawaay ñu bëgg la kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow kii euh, Ahmed Aïdara waaw bëgg nañ ci yow billets bari na macha allah macha allah bari na ah. waaw géejawaay moom xam naa ne stade bi ñoo ko occupé barki Serigne Bamba